waaw euh, li yenn gars yi wax mooy li nit ñi di dund ñun ñëpp li ñu gis li ñu constaté ça fait une semaine. Mm-hmm. que xelu kenn ci Sénégal toogul. violence bi am na lu ñuy regretter la et yaakaar wu ñu woon na xëñ na dina egg niveau bi mais damay fàttali rek ne ñun ñun au niveau de la de la République des Valeurs dañoo yàgg artu mm-hmm. yàgg nañu bind ay communiqué yàgg nañu wax. Mm-hmm. ci situation Sénégal fi mu toll nii. tension bi mu nekkee nii bu ci nguur gi jugul mën nañu egg ci lu mel nii damay fàttali ne en mars avant événement yi avant événement mars yi di am République di bindoon na benn communiqué sur la situation sur tension bi fi mu toll on sortait du Covid euh, Banque mondiale defoon na benn étude FMI defoon na benn étude waxtaanoon nañu nañ ci ak sénégalais yi ne leen nañu moytu nañu def nànk attention parce que la tension elle est là elle est latente elle existante deux semaines lañ ci topp lañ ci teg réew mi tàkk tàkk entre guillemets en tout cas mu am ay ay ay ay événements donc pour dire c'est vrai il y a des violences yi fi nekk et loolu on le on le on le dénonce parce que dama gëm ne Sénégal bu buñ ko buggee defar du ci violence bi nii lañ koy defaree déedéet mën nañoo yuux lu ñu metti mën nañoo am nu ñu taxawee mais yàq waru temps ci lépp lu mën nekk yàq waru waaye nag yàq bi dafa am fu mu jóge tension bi situation bi tey dafa am fu mu jóge dafa am nguur bi fi nekk bi ñu dénk sunu sunu bi ñu dénk leng yi ñu ngi naan président de la république na wax waaw kay parce que population bi la dénk lenge yi bu demee ba jàq amul ci kenn ku muy jublu lu dul yow parce que yow yàlla laajoon ñu jox la ñu jox la. bu nit ñi demee na ba jàq dañ laa na ah monsieur le président de la république tes concitoyens tiit nañ nit ñi jàq nañu nit ñi liggéeyatuñu xale yi jàngiwuñu waxal ak ñun wax ñu naka nga mënee def pour régler situation bi nii donc c' est normal que citoyen citoyen yi ne ko président de la République waxal. léegi wax na ne après après dialogue bi lay wax on l' attend parce que aussi kilifa da nga koy mën a wax rek moom moo xam heure bu muy wax nee na dina wax après dialogue bi ñu ngi xaar lan la ñuy wax mais liñ ci gën a jàpp mooy dina wax li nga xamante ne dina dalal xelu askan wi parce que dafa am fi mu jugee. dafa am li yokk tension bi bugguñu mu jël nag diwlin jox ko ci taal bi. Mhm. ndax ñu ngi wax wax troisième mandat loolu bokk na ci li envenimé situation bi tey parce que dafa am li ñu bëri ñi nga xam ne d'accord ñu ci situation boobu noonu. parce que moom le président Macky Sall dix ou onze ans avant lii dafa bokkoon ci beneen côté bi doon xeex li ñu nekk di ruumanaat nii muy troisième mandat bu ñu fàtte ne en 2011 il y a eu onze morts ci ay waxu troisième mandat d'accord nañu d'accorduñu situation boobu moo ñëwaat xëy na leneen yokkaat na ci donc moom bu ñu koy xaar buy wax war na wax li nga xamante ne du ñu delloowaat 11 ans wala 12 ans en arrière donc c'est normal ñu xaar ko waaye xaar ko ci mu wax ak ñun wax nañu sànq yàq bi xale yi nu ñu nekk mais xale yi dafa am leen métti néew ma ñi génn ñëpp ay ci xale ay xale la dafa am ñi leen rax dëgg la loolu ñëpp wax nañ ko ñëpp gis nañ ko te loolu état bi fi nekk nguur gi fi nekk mooy le garant de la sécurité des citoyens parce que yàq alalu jaamur sànq maa ngi déglu le président de l' association des gérants de station muy wax ci à la limite dafa ne sax ñoom dañuy tëj seeni i station parce que ils sont exposés te seen i alal la ñuy yàq du alalu réew mi loolu l' état l' mooy le garant de cette sécurité moo ñu war a indil sécurité bu ñu war a mën a bañ a toj loolu waaye ñi toj loolu am na lu leen métti parce que am na loo leen diggoon muy nguur gi muy président de la république te matewu te 12 ans la amoon pour def ko ba tey nit ñaa ngi xaar mu defal leen dara gisuñu si seen bopp ci loolu donc bu ñu exploser parce que am na li ñu yàgg denc li ñu yàgg yaakaar gisuñu ko tey explosion de colère la c'est normal ni ñi yuuxu ñu toj loolu c'est condamnable waroo toj waroo yàq parce que boo yàqee président Macky Sall 2024 day dem beneen président moo ko fi wut bu ñu yàqee lépp lu mu defar lépp lu bien privé yi nekk fi ñu di yàq ko ki fi nekkaat cinq ans gëmuma mu mën a defaat la ndax il sera là de reprendre li mu defoon mu nekkaat bis répétita xale yi gën a meraat leneen mën na ci fekkaat donc aussi moo tax keroog le président Thierno Alassane Sall euh, def un point de presse il s'est adressé à la nation il s'est adressé à la population sénégalaise pour rappeler ñëpp à la raison nañu dellusiwaat suñu xel dellusiwaat xel yi surtout leader yi surtout kilifa yi borom kàddu yi intellectuels yi nañu wax ci situation réew nañu woo ñëpp à la retenue parce que comme ni ko Diagne waxee bu jàmm amul. dara mënoo ko fi teg pour mu avancer déedéet foog jàmm am waaye jàmm na ci kaw dëgg ndax dëgg bu amul jàmm dafay sori nit ñaa ngi wax injustice nit ñaa ngi wax justice à de vitesses perception la mais perception boobu noonu nit ñi ñu dénk réew mi ñoo ko war a dind ci Sénégalais yi ñoo war a dem ba Sénégalais yi am confiance ci justice bañ a xalaat ne justice bi tëddeewul njaaxaanaay inéquité sociale bi fi am ñoom la ñu wax ne. ba fi Abdoulaye Wade nekk loolu lañu doon xeex ñëw leen ngeen dindil ñu loolu mais bu ñu ñëwee ñu gis ne situation bi dafa empiré mais seen normal que nit ñi génn exposé seen colère donc ñun foofu lañ koy xaar na dalal xelu askan wi na dalal suñu xel wax ñu ne li ko fi dese moom xel yi dina dal sécurité dina ñëwaat dëgg dina fi lalu justice bi ñuy ŋaañ dina tëddee njaaxaanaay ku ñu yóbbu justice waratoo xalaat ne damay dem rek waaye ndem bokkuma boor rek duma fa am lu ma te loolu mooy malheureusement loolu mooy perception sénégalais yi. boo nekkul di côté du pouvoir boo amee problème de justice d'emblée da nga naan je perds. et nit ñi wartuñu waruñu am perception boobu noonu war na jàpp ne justice ñëpp la fi nekkal. Hmm. et malheureusement c'est ça qu'on vit aujourd'hui et vraiment euh, on pense et on espère que vraiment le président de la République après le dialogue. bien que hmm. ñun demuñu ci dialogue bi dialogue bi nee na lañ ko jàpp peut-être loolu beneen kii la mais vraiment buy wax nit ñi bu jugee ci discours bi ñun suñu xel dina dal. encore une hmm. ci Sénégal